Bonjour chers téléspectateurs de la télé Suñu TV bienvenue dans votre émission Sama Leket euh, Sama Leket tey dafa ñëw ci benn quartier bu ñu naan parcelle unité 25 Sama Leket nag soo leen ko déggee seen xel dina doom dem ci suñu maam yi temps bi ñuy nekkee. tuut tànk dañ doom gàddu seen leket daagu nànk ndugg ñëw toggal suñuy waajur léegi nag tey sama leket dafa ñëw fii ci parcelle dañuy àndandoo man ak yéen ñu xool kan la ñuy for ci mbedd mi ànd ak moom dem marché daagu nànk xool lépp la nga xam ne am na ca marché ba xew na ca marché ba sama gaa yi topp leen waaw daa mel ni de am na ku ma gis fii benn soxna muy dox soxna si na nga def euh, mbaa yaa ngi si jàmm. maa si jàmm soxna si tey benn émission lañ créé buy tudd sama leket moom nga gis ni soo xoolee leket bi sa xel dina dem ci temps ba ñuy nekk euh, suñu maam yi temps bi ñu doon dem dugg ji marché dañ doon gàddu seen leket ànd ak moom dem duggi donc euh, soxna ci mën nga ma accompagner yu dem xool marché ba lan lañ fay fekk. waaw nañ dem. waa kon gars yi topp leen ñu jël nànk daagu nànk ban marché la ñuy def. nañ dem marché Grand Médine. waa kon gars yi topp leen. soxna si naka waa Grand Médine. Euh, yow ban marché nga faral di dem Grand Médine wala yeneen man marché damay dem Grand Médine damay dem Gueule Tapée. Uh-huh. fu ma kii daal fu ma santi daal des ma dem Thiaroye d'accord. d' accord kon dugg semaine ngay dugg dooy dugg chaque jour yow chaque jour dooy faral di dem marché wala. des fois ma dugg dugg semaine des fois may kii chaque jour ma dem marché. yow est ce que booy dem marché faral nga di ut leket tàmbali di utiliser man leket laay utiliser parce que man yëpp sama yëpp cosaan la. waaw sama yëpp cosaan la. comme comme mag ñi nañ ko doon waxee leket lawtal la. lawtal la donc ñun jeunes yi. ak yéen ñi nga xam ne yéen suñu waajur. war ngeen ñi duñu gën jàngal loolu ñu utiliser leket parce que leket foo dem fa nga koy fekk boo xoolee pël yi ñuy ratt lu ñu utiliser leket la ñuy rattee mhm. man leket man leket dama koo bëgg parce que man lépp cosaan laa koy def mhm. leket laay nduggee mhm. bu may defee bu may naan soow mbaatu leket laa koy naane sama lépp daal ma daal cosaan daal laay la laa gëm ba tey waa gars yi kon ni ngeen ko déggee rek suñu yaay ji dégg nga li mu wax ci leket kon nag leket am na solo kon gaa ñi topp leen topp leen ñu nank ñu dem euh, marché Grand Médine xool lan lañ fay fekk marché bi léegi neex na daal. waaw parce que des fois bu dul nawet daal. Mhm. boo demee marché def ak sama euh, instant yi boo demee marché da am lu bu baax am dugub bu baax te doo fois marché bi xawoon na xari mais des fois mu neex ndax àddina moom lépp noonu la. dëgg la waaw comme fa nga waxee noonu. nga ne nawet bi. nawet bi yow lan nga doon duggee marché parce que bu tawee ba pare dañ ko ak légumes ak jën yi affaire yi jaxasoo te des fois yooyu dañ ciy yow ba nga boo demoon dugg ba ñëw yow nan ngay utiliser say légumes ak say say say affaire pour toog loolu su ma demee marché ba dugg ba ñëw. Uh-huh. su may dem su ma su ma ñibbisee damay jël eau uh-huh. def ci ndox am na ci solo. waaw def ci ndox raxas ci samay légumes ba mu set. Uh-huh. xoqal ci def ci raxas ci bitim yi ba mu set ñaari ndox damay def benn ndox tuur defaat beneen ndox def ci eau de javel raxas ba mu set benn microbe du ci moo doog a jël dugal ci sama frigidaire léegi jën yi tamit su ba pare deuxième ndox bi dama ci toqal eau de javel ak yaa raxas de raxasaat ko ba set su daal di jël nag léegi doog jël say jën li ngay togg nga teg ko fee togg li nga xamante da nga koy denc da nga koy congelé léegi nga congelé ko denc yow maman tey lan nga ñu mën a wax ci liggéey bi nga xam ne moom laa la fas yéene ànd ak moo lay accompagner pour nga dem dugg sa aj te yow ban conseil ngay nga may joxal say doom wala say xarit wala say am di jàmm ci liggéey bi nga xam ne moom moo war a nekk man ndeket sama lépp ci luy law laa ko bëgg a def parce que luy law dafa nekk loo xam ne nii lu baax la daal samay doom ñi nga xam ne ñi nga xam ne nii am nañ am nañ am kër dama leen di wax naan heure boo leen di defal seen kër yi kii maanaam ay caag rek yooyu man su ma sañoon sax ñu jël weer nañu dellu cosaan dellu cosaan waaw ndax cosaan dafa neex dafa neex daal kon ni ma leen ko waxee sànq yéeg nañ taxi ba waaye ñu ngi fii ci Grand Médine donc maman jox nañ suñu maman leketam donc gars yi ñu ànd ñu xool ci biir lan la ñuy fekk ci marché bi topp leen ah man de tey maa ngi soog a ñëw Grand Médine xaw ma ne woon sax am na marché. Grand Médine am na marché Grand Médine macha allah man fii laa juddoo. ba fii amul du am ay problème de fois amul insécurité wala genre yooyu noonu parce que man fii tey maa ngi fii soog a ñëw est-ce bi it marché bu rëy la wala marché bu ndaw. marché bi marché bi marché bi rëy marché ngoon bi tamit marché jën bi. Mhm. ñu yëpp si ñu bëri ci la ñuy ci la ñuy jënd si yëpp parce que HK yi ñu wër yi yëpp si la ñu la duggee si ngoon gi. marché bi am marché ngoon am marché marché kii bi suba si.

dañ ciy ànd suñu jeeg wala suñu morom ànd ak moom dem ci marché bi xool li nga xam ne am na ci marché bi donc moom dafa choisir ñëw fii fi nga xam ne yow yaa koy jaay moo tax ah, léegi jën bi euh, naa jënd 4 mètres moo gën ah, ñaari gisee suñu jigéen ak téléphone waaw baax baax yàlla ci yàlla def jàmm amin amin amin amin fi ko waxee rek ñu ngi ci biir marché ñëw ci suñu maam lii di jaay suñu kon gars yi ni ma leen ko waxee suñu fii bi nii la def dañuy dem fu nekk fu nekk soo xam ne mën nañ ko dugg rek wane li nga xam ne am na ci dëkk bi dañ koy yem yemul ci marché yi ñu ngi ci événement yi soo leen amee seen match mën ngeen di woo soo leen amee seen événement aussi mën ngeen di woo soo leen amee aussi seen soirée soo jaamul bii bi daal yéen la ci waaw kon gars yi ni ngeen ko gisee ñëwoon nañ ci suñu maman pour jënd si ay nit léegi nag euh, ñu ngi dem fi nga xam ne fa la ñuy yeggalee suñu suñu mbir mooy xam nga boo togg ceeb bi boo jëndee jënd ak ceeb ay légumes. suñu TV. moo xew ci jamono moo xew ci jamono fa ñëpp yi ñëw. waaw gars yi kon topp leen ma ñu xool. gaay kon ni ma leen ko di kon ma leen ko di waxee booy teeg ceeb da ngay jën ba pare nag dañuy ñëw fii dugg suñuy léegi ñu dugg suñuy baax ceeb ba gën a neex soxna si nanga def si jàmm waaw tey suñu nag dafa ñëw lii nga xam ne mooy seen marché bi ànd ak suñu bu baax bii bañ ko waxee def nañu dafa am client bu spécial koo xamante ne fa lay loolu moo tax ñu ñëw tàllal la suñu léegi chéri damay dugg bu ceeb te ceeb defe naa moom mbuguma dafa a dafa war a riche waaw kañ loolu mooy jaxatu. waaw. ñaata. cere la tamit sa mën a wàññi wàññi ko ak kaani bul ko fàtte ak euh, yooyu noonu yëpp tamaate njamb bu xonq la ñuy togg wala bu weex waaw bu xonq xonq la ñuy a ceeb bu xonq laay togg. ñaata karoot a bu xonq laay togg. Euh, ñi nga xam ne ñooy seetlu ñaar fi ngay ñëw di jënd yan euh, ma fi dalee dugg ba léegi man ma fi dalee dugg ba ma fi ba léegi aw fi nga sama maman bii toog a dee caama man maa a marché la naka marché bi nag marché baa ngi nii rek ah bu na bon bu yokkoon na mu gën a neex nag mu gën a neex waaw ndax léegi si mu nekk moom wax dëgg yàlla neexul dara maman yow suba si ngay liggéey wala ngoon suba si rek lay liggéey des fois dooy am problème fii ñëw du am fii wala yooyu waaw lépp moom bay loolu wax lépp moom amul sécurité ba pare sax xam ko neex ko moom ñoom ngi nii rek ñu dundee yaakaar Njaay Njaay mi lax rek noo tuur. <laughs> waaw maman noo gisee suñu TV bi nga xam ne tey daa ñëw seen marché mooy kii waaw ah dafa légal de. légal <laughs> waxal na suñu TV mooy télé bi xew si jamono. ah moo tel moo moo xew si xew si jamono si jamono. da nga naan suñu TV suñu TV. mooy télé bi xew si jamono mooy télé bi xew si jamono. <laughs> waaw maman dama ko sax ndam. ah d'accord d'accord suñu caméraman bi. maman ñu ngi lay jaajëfal de. jërëjëf. waaw tey suñu client bi moo ne ma da nga fi am client spécial boo xamante ne da koy jaay ay ceeb ak dugub yow la contact bi nga lekk waaw kon gars yi jógee ci suñu jaaykatu légume bi fa xam ne fa lañ jëndee ñoom ñoom carotte ñoom supame ñoom kaani ah dina lépp daal rek. macha yaa ko gisee noonu donc bi tey moo ne ñu ñëw ci yow jëndee fi diwlin ak des. dëgg sama bu baax la. dëgg sama mag ci lay duggee. sama tamit aussi fi lay duggee. moo tax man depuis ma ñëwee Grand Médine ba tey man tamit fi laay duggee te ñun Grand Médine rek lañ am ndax fi duggee. dëgg la bu bees bu xew ci jàmm moo fi ñëw mooy suñu. TV suñu TV nag lenn rek moo ko tax a jóg dimbale askan wi di woon askan wi ñi nga xam ne duñu gis ñu leen di woon liy xew si jamono moo tax tey ñu ñëw fii nag seen marché bi nga xam ne mooy Grand Médine ñëw fii ànd suñu jéeg bu baax bi baax ma ne ko yaa baax leen jéeg vraiment yaa baax ko yaa nga looy wax suñu TV waaw xanaa di leen wax rek ñu yokk góorgóorlu waaw incha allah ndax àdduna moom comme ni ñu koy wax kenn ku nekk war nga bay sa waat ci réew su kii nekkee ci lii rek kenn ku nekk rek na nga ba nekk ci jubal rek nekk ci loolu kon ñu profité wu ci loolu di big up tout tout tout ñi nga xam ne ñi fi nekk mooy jaaykat yi mooy suñu maam yu baax yee di jaay jën ak ñi nga xam ne dañuy jaay légume di leen jaajëfal di am contentement bu wér bi nga xam ne ñëw nañ tey fii ci télé kan ngay may dédicace ci ci biir émission dédicace waaw xanaa di ko may waa grand mhm. bi am nga soxna may ko ko jàllale ko <laughs> yow da ngaa bëgg sa soxna si ma jëlee woon <laughs> waaw maman nga profité wu nga wax kan biir émission nga xam ne moom moomu di la seetaan ah su loo xoolee xol tam xolam bi seet man dédicace maa ngi koy may mhm. sama mag du baax ci man ak sama rakk Ndey Fall ak Tontu Fall mhm. ak jëkkëram Fall si la ak samay doom ak doo ak doomi Ndey Fall ak sama sama sama taw bu góor bu rafet bii di amaar di ko may ak maa di la ko may di ko may daal mboolem ku dëkk Grand Médine maa ngi ko koy may. gaa yi kon kon ni ko may di ko may ñëpp. waaw kooku sama xarit la sama lonkool. di ko may euh, toute la team suñu TV maa ngi leen koy may. di ko may au passage sama yaay jooju nga xam ne lépp tey moom muy maman Ndeye Mbodj ak kenn ki nga xam ne dafa. muy maman Dior mooy yaayu Ahmed Anne ak maamu Papa Anne moo ma jox leket bi nga xam ne moom la ñuy defee suñu kii bi di euh, émission bi tudd sama leket. maman jëndal ko xam ñu ak fàtte naa ki ne wilaan sama dëkkandoo bu baax. Mhm. di ko ko may ak Aïda sama chéri mhm. di ko ko may mhm. ak sama xarit ak caa ci caaroy gaar xaama kan ñoom ñëpp maa ngi lay koy may ndax dañ koy déglu société waaw merci beaucoup léegi ma magi defal ma magi. magi ñaar ñetti magi ah. waaw defal ma kaani 100 francs. ak kaani 100 francs tàggal mu ngi noonu yéen a yéen a ngi noonu aussi dama ne gars yi bu leen kenn nettali émission bi lii neex na torop dama ne ngeen dem YouTube tàppe suñu TV ngeen abonné ba di fa am émission bi en direct ah yaa a di ko may aussi sama musicien boobu noonu ba nga xam ne nee na dafa war a def soirée bu rëy ba pare nag nee dama koo tuddee muy kan Rahim Rahim Rahim ñu ngi lay ñun waa suñu TV dina ñëw incha allah sa soirée boobu fëndal ko ba mu fëndal ah, dara du yoon xam nga dañ ne suñu TV mooy télé askan di wane lépp li nga xam ne am na ci dëkk ñun xeebuñ dara événement dañuy def sabar dañuy def te dinaa leen wax lu leer nañ suñu TV mu ngi pare lu rëy muy grand sabar boo xamante ne war na am mais mais rëy lañ ko war a mën a def nag fii ci parcelle parce que lépp parcelle lépp la dem ci mairie waa ñëwul wax ñu leen bi fii ci seen marché bi nga xam ne mooy marché HLM maa ngi nii ba ma juddoo ba léegi xaw ma ne woon fii am na marché dëgg ñu ngi leen di sant yéen tam yéen ñi ñuy gëstu ba dañuy seet si ñu ngi leen sant seen gërëm di ñaan suñu kii di kii boobu yàlla ko yàlla ko la laaj bi jigéen ñu mën ko seetaan xam nga jamono ji ñu toll nit ñi amatuñ jot dëgg toog ci télé waaw léegi loolu moo tax ñun ay jeunes lañ dañoo bëgg a jëmale suñu réew kanam moo tax ñu créé benn télé en télé en bi lu raw ci télé yi boo tapee foofu diñ ko gis tax suñu TV génnee benn émission bees sama leket maman kañ nga gëj a gis xale wala jeeg bu gàddu leket ñëw mu gis leket day law loolu baax maman bëggoon naa nga jox conseil tamit sama xarit yi sama mag yi sama rakk yi sama yaay pour ñuy utiliser leket bi nga xam ne liñ naan leket lawtal lawtal boobu laa bëggoon nga leeral ko tuuti sama leket lawtal la bu neexee yàlla ko koy nga moom sa affaire lay barkeel rek ndax lew laget moom dañoo fekk suñu yaay yeeg suñu maam yi ñu meer yëpp ñu di ko téye am na solo léegi maman damaa bëggoon nga waxal ma suñu TV moo xew ci jamono. suñu TV. moo xew ci jamono. suñu TV moo xew ci jamono. suñu TV. moo xew ci jamono. waaw maman ñu ngi lay jaajëfal. yaa ngi waa gis nga kon ni ma leen koy waxee gars yi lii rek la woon suñu TV lii la fi indi woon ci sama émission sama leget sama leket suñu suñu invité du jour mu ngi ni maman tey nan nga gisee émission bi lan nga ñuy wax ñu yokk ko aussi ban message ngay lancé. émission bi daal def ma loolu kontaan parce que grand bi bu ngeen fa demee rek xam ne. Sun TV ñëpp moom lañ moom lañ jubali fi mu nekk nii di ñaan yàlla yokk ba yëg ko rek ci barke Seydina Mouhamed waaw parce que gis nga ni mu demee. macha allah neex na lu affaire bu ma bett la daal. waaw lu ma bett la waaw. te ñu ngi lay jaajëfal parce que bu la neexoon tey nga ne duma ko def affaire yooyu léegi la mais ñu ngi am contentement bu wér ñun waa suñu TV. loolu du dara man seen TV man suñ TV la ñu am. waaw kon moom la ñu war a bége moo encore moom daal macha allah daal waaw. waa gars yi kon ñu bàyyi suñu invité mu àgg ca kër ga. suñu TV lii moo ko tax a jóg lan moo ko tax a jóg muy askan wi. donc suñu TV indi émission bees tax muy euh, sama leket sama leket kon ni ma leen koy waxee kon ni ko mag ñi di waxee mag ñi ñoo ko fi indi woon ba léegi nag ñu ngi koy utiliser mais damay wax encore une fois lancer message aux jeunes di leen wax ne bu ñuy nduggati nañu gàddu leket parce que leket liñ naan lawtal la lawtal la tey ma jox leen exemple bu gën a gàtt tey booy sëyi tey boo demee laax ba ngay lekki sax leket nga koy lekkee kon gars yi chaque jour nañ ci bàyyi xel. nañ ci bàyyi xel di utiliser li maam yi doon wax gars yi maa ngi leen di jox dig daje su suñu beneen numéro comme niñ koy waxee rek chaque jour dañuy am invité bu bees kon gaay yi ba euh, semaine ba ba semaine prochaine incha allah ci beneen numéro bu bees ci beneen anam bu bees ci beneen yëf yu bees kon gars